instant yi man li ma amal solo mooy ñu gëm dara ba ba driver moment bi moment bi dafa dafa. mais malheureusement ils ne parlent pas le même langage. Euh. les 16 les se braquent euh, président Macky Sall ak ay nitam am nañ lu ñu décidé maanaam tey ji même même si une décision venait à sortir euh, de ces conclusions li président di wax ñële ñële dañ koy rejeter en fait loolu mooy danger bi. mais mais en fait pour man. Euh, il faut voir ce que ce que ce que ce que le président de la parce que bu ñu woote xëy na beneen collège électoral je ne sais pas est-ce que euh, collège électoral boobu euh, day mel day éliminer bële ak la la la fa xewlu je ne sais pas mais mhm. xëy na juriste dañ dañ ci leer bu ñu waraat beneen collège électoral. est-ce que ce que gis mooy du moment que la euh, euh, na mhm. le mandat du président jeex na. lépp lañu moo tax moo loolu moom dina teg toor bu mag a mag jëmale ko ci candidat yi. surtout yàlla bu mais loolu nag pour man aar suñu élection yu aar suñu élection. fa la ñu war a entrer en jeu. voilà pour man aar suñu élection war na jouer rôle bu am solo. mais rôle bu rôle bu intelligent parce que du ngay da ngay faral opposition parce que xeex ak Macky Sall dal ci kawam du du du ndamu kenn ci ñun. Mhm. parce que quand même il est devenu fragile très fragile parce qu'il est fragilisé par l'international il est fragilisé à l'intérieur de son pays. Ouais. maintenant foofu nag. même dans son nit foofu nga koy mayee loxo. président même buy wax di fa gëdd gaawul mais nañu nañu xool ñun. Mhm. élection yi ñu jëm nu ñu mën a. defee le plus rapidement possible ba mois de juin ñu organiser ko li ñu doon bëgg ci avril mënta am maintenant nit ñi taxaw respect dans les principes yooyu c'est sexy quoi c'est joli mais ça coûte pas mhm. loolu ñëpp mën nañ ko mais li am solo mooy ñu pragmatique xool li mën a nekk li mën a nekk mooy fexe nañu ba ne ba dàq nañ ko moom dàq bi acte nañ ko nañu def campagne ñu xam ñu ñu fal ñan lañu ñu xam lan mooy seen projet de société ñu xam lan la ñu ëmbal jaratul ñuy përëx përëx je pense que d'ici deux ou trois mois d'ici quatre-vingt-dix jours mën nañu organiser élection lu mën a tombeel nag élection du passé quinze minutes ci citoyen bi. Mhm. quinze minutes. cest à nga génn dem voter ji bu ñu bu ñu sonal naa ñu dañuy am. tabaski wala ay nawet ak vraiment lu mën a def rek. organiser élection législative yi ci nawet lañ ko organiser. Mhm. donc vraiment bu ñu wut benn lay mais nañ ko. nañu xool léegi bu ñu ko ubbiwaatee ñu xool délai bu bu bu boo xamante ni c'est c'est vraiment moo gën a gàtt ci délai. raisonnable délai bu raisonnable boobu conseil constitutionnel moo ñu ci mën a jàppale. maintenant lu conseil constitutionnel décidé gis nga quelles que soient les conséquences ñu nangu ko parce que li tax ñu ko war a koo nangu mooy dañoo nekk ci moment bu difficile. Mm-hmm. bu ñu fi nekkee di xuloo waat di nettali ay xuloo di gërëyee gërëyeelu di di wax man wax yu dëgër yooyu li ma soxla mooy campagne projet de société. Mm-hmm. mais président Macky Sall pour man. Euh, su ma ko gisoon muy muy muy muy muy doxal doxal boo xamante ni euh, quelque part c'est pour son camp wala son candidat mën nga commencer di xeex ak moom sax. mais ah, mais mais l'œil de l'observateur ndax gis nga un problème. entre moom ak son candidat. en tout cas dans son parti il y a certains qui ont problème avec. Euh, mm-hmm. son candidat te moom ni mu doon rëqee ndigu ñu àndul ak li mu bëgg rëqul ndigu ñu àndul ak son candidat. loolu xëy na nit ñi ku ci nekk euh, yaa boire yaa manger ak ku ci nekk lu mu koy interprété mais gisuñu ko bokk mu teg acte boo xamante ni dafa dafa jeng ci candidat mm-hmm. dafa gisuma ko loolu mën na tey gisuma ko parce que boo xoolee li ñuy wax ci affaire yëpp dañ naan dafa lu nekk ci xoolu président de la république mooy bàyyi Karim Wade ak Ousmane Sonko ñu bokk mm-hmm. te loolu ça fait la l'affaire de son candidat c'est clair ça veut dire que donc pour man comme mi ngi ñu ngi koy jiiñ loolu mooy jéngul pour jël affaire jox ko son candidat maintenant foofu la ñu indi négociation gis nga négociation ci crise dañ koy defee. c'est vrai quand tout se passe bien jarul négocier. mais vraiment bu ñu fi nekkee ñun ñi ñëpp di di di juux naan non 2 avril la war 2 avril ku nekk naan kuy dem ku kan moo koy remplacer yooyu dañ ko war a dépasser pour man dafa am ñoo xam ne ñoo koy wax nañ ko bàyyi ak ñoom mais les gens doués de raison mooy nan la Sénégalais di di di gérer passe bu difficile bi ñu génn ci te xat du damp parce que